mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne Fass rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Balla Gaye 2 ak ñaari gàkk-gàkk ya sunu lamb jàpp ne moo gàkk ci carrière am Balla Gaye ci carrière am sunu lamb ne defet ba ko Bombardier daan ak defet ba ko Eumeu Sène daan ñaari defet yooyee mu jële ci Eumeu Sène ak Bombardier moo taas ci carrière am détrôné bi ko Bombardier détrôné li muy metti metti daan yi ko Eumeu Sène daan ko gën a metti moom la Lion de Guédiawaye njiital taay nga dafa ñëw daan ko ñaari yoon seen ñaari confrontation yépp Eumeu Sène daan ko yoon mu ber yoonam doon roi des arènes Bombardier ko fa ne ko coppet ca moom moom Balla Gaye gàkk-gàkk yooyu moo gàkk ci carrière am ndax dana ko rectifier wala déet ñu ne li des ci làmb ji xajatu fi Bombardier ci carrière benn combat la dese bu ci bërek Eumeu Sène jeex na tàkk Eumeu Sène li des ci carrière mënu cee bërek Balla Gaye ñaari yoon kon Bombardier faaw mu bàyyi làmb yóbbaale victoire am ci Balla Gaye Eumeu Sène it faaw mu bàyyi làmb yóbbaale victoire am ci Balla Gaye Balla Gaye ni mu ko mën a rectifier mooy jàpp ñi fi des noggatu lieu que Balla Gaye 2 di nekk sama adversaire Gaston Mbengue moo mujjee nekk sama adversaire mënumaa préparer combat contre Balla Gaye 2 Gaston Mbengue di ma teg pression ñaari adversaire mënuma ko am ci làmb joxoon na ma xaalisam ci cadre liggéey danaa ko delloo ba mu mat sëkk bu ñu delluwaatee ci coowal CNG bàkkan mooy remplacer président Alioune Sarr dañ fay fekk Amadou Mbaye ak Père Ali ñu wax ci seen xalaat Amadou Mbaye mi président amateur authentique moom la mu xam ne mooy beneen président bi fii ñëw nekk liggéeykat na nekk nit ku bëgg làmb mu analyser ko ba xam naka lañ ciy génne fi ñëw dangaa a programme président président bu fi ñëw da ko jële foofu yóbbu ko fu gën a sori foofu ana nga yaakaar ne mën naa nekk président CNG mu ne manga de manga de bu fekkee bëgg na ko mën na koo nekk wala Mohamed Ndao Tyson wala Moustapha Guèye ñi xam nanu làmb dund nañu ko def nañu ko ku ñu ci jox làmb ji da nga ko doxal bu dee Serif at Xaana Fall moom la ko naqari mooy wax ju bëri ji ci kan mooy remplacer président Alioune ñi terroriser nekk ci presse bi di manifester wu ku ne di wax moom la muy sàkku ci waxkat yeeg ña bëgg a remplacer président Alioune ñu delloo ko njukkal li fi président Alioune Sarr làmb ji ku fi nekk da nga ko waroon a delloo njukkal kii li mu liggéey ci làmb ji dafa mérito ay tàcc mais pas ay ñi fi nekk nag di def bruit di yëngal bëgg ñu dégg leen kenn xamu ci dara mënuñoo yor làmb ji xamuñu fan lañ ko jëmee wax képp lañ fi nekkee mbooleem ñi fi a a naa amul kenn ku ci mën a yor làmb bu nu jàllee ci diggante Modou Anta ak Diène Kaïré bile combat ñu ngi koy démarché Modou Anta bu Thiès Diène bu Soumbédioune bile combat ku ñu ne taxaw ne tey tey bul ko weddi am na promoteur bu nekk ci bile combat te sori na ca lool bu nu jàllee ci école de lutte Jimbori dañ leen di fekk seen bilan ñu def 3 victoires 2 défaites ku wax Jimbori wax Bébé Saloum Pape Thiam un Modou Baye ku wax Jimbori wax Moustique wax Rës seen a nekk seen ñaari defi moo bu kër Mbay Fall moo daan Lat Joor bu jimboori bu dee seen coach ba Marley la mu xamle mooy sunu ténor yëpp bu doon dañoo bërek bilan bi du demee nii ñàkk ay combat yu bari képp moo tax bilan bi demee nii waaye li ci kanam raw li bët nañu liggéey ba ca kanam jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci yéene kaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg insha Allah mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fashion by Collé Laye gérante ba di woyo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye la leen di def lu leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escrit plaquage greffage wala seen i greffage bu bëgg ay pour defar seen greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen bëgg greffage nag xeet bu mën di nekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i perruque peñe yaa ngi fii ak mbooleem wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw greffage rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si